asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah lundi 10 août 2020 ñu ñëw ak yéen ci yëglikaay sunu lamb la ñuy xëy tey dooreetu ko mu mel ni ki nag yëglikaay bi moom loo ci mën di dégg daal tey moom dafa xëy ñëw ci juróom benn mbër yoo xam ne daal jàpp na ci démb moom ñoom maanaam daal adversité ga amoon ci seen diggante metti woon na trop maanaam ku jéggoo tara tara tara tar waaye tey ji nag moom ñoo gën a jaxasoo ni muru akum soow wala suukar akum soow boog muy ki nga xam ne nii moom moo di Balla Gaye numéro 2 ak Balla Gaye numéro 2 mu mel ni ki ñooñu moom boo demee ca démb maanaam nañ doon wujjee ci wàllum làmb metti woon na trop ba tax ñu sequnub combat Balla Gaye 2 mujje ko daan waaye tey daal ñoom ñaar boo bëggee dégg dëgg yëglikaay bi na dañoo mel ni ñoo xam ne ñoo bokk nday ak bàyyi loolu mooy sunu ànd ñaar ña ca des mooy diggante Gris Bordeaux ak ki nga xam ne moo di Eumeu Sène mel ni ñoom ñaar tamit fu ne jàmmarloo nañ fa ci wàllum làmb ñaari komba yoo xam ne bu ci ne dangaa tar lool waaye léegi day ñoom ñaar itam seenu diggante daal safante sàpp la ñu def maanaam ñoo bokk dëkk a mbaaw ba pare nag xaritoo ngeen xaritoo goo xam ne foo ko takk weesu na ko ñeneen ñaar ñi ci des tamit ku nekk yaa ngi fàttaliku seen diggante muy Papa Sow ak ka nga xam ne moo di Modou Lo ca kalaf ba nga xam ne moom la Gaston bi nga tëggoon wala boog daal jàppal seen combat ba nga xam ne séqoon nañ ko mu metti woon lool lool lool waaye tey jii nag moom daa mel ni ñoom daal dëkkandoo ga boole na leen ñu far xaritoo goo xam ne daal xaritoo goo xam ne daal à ville maanaam dund mbala boog dee moo koy jeexal yàlla na yéex yëglikaay bi xëy tey ñëw ci juróom benn mbir yoo xam ne daal ca démb moom seen diggante mettoon na ci kujje waaye tey jii moom safante nañu lool xaritoo ànd yëglikaay bi xam ne ni moom yëglikaay bi xëy na tey ñëw moom wala ñeneen ñoo xam ne ni dañoo xëy ci ñoom muy écrit xam sa cosaan ak dox gi nga xam ne daal fi mu nekk nii ñu ngi koy dox mel ni ki daal seeni dox yéex na lool ndax seeni combat bëriwul te seeni defet bëri na seeni mbër tamit yu mag ya parce que bëre moom géej nañu koo def huit combat la ñu am ren yëglikaay bi ne na am nañ ci juróomi defet ak ñetti ndam loolu mooy li nga xam ne ni moom la ñu def ka nga xam ne nag moo di Jordan moom yëglikaay bi daa jàpp ne moom dafa nekk foofa rek fa nga xam ne mooy xam cosaan tur daal a fa ne waaye moom gis ko la kenn mënta def ñun mu takk ngeem wàcc na day bëre maanaam Jordan daal moom yëglikaay bi noonu la ko gisee ka ca des moom di leader ba muy ond la fuu ond tam yëglikaay ba jàpp ne moom dafa gaare daal ko keneen koo xam ne nii moom dañ ko doon xaar moom itam ngir mu war a bëre combat far avorté muy soq digganteem ak gàmmu géey moom jot ta bëre ka bëre nag moom di ki nga xam ne nii moo di li di mag ja moom daal dafa ba mu am moo bette bëri na bëre bu metti waaye daa mujj a ñàkk la nga xam ne moo di kombaam waaye itam ba tey ñoom xam sa cosaan man na noo yaakaar ci xale boo xam ne nii daal mooy Batista numéro 2 mu mel ni ki daal moom fi mu nekk na xele ndax xale la boo xam ne mu ngay wane lu leer te teg na ay mbiram tamit ca yoon daa mel ni yëglikaay ba moo xëy ñëw wax nu lu mel ni ki noonu Modou Diop ma leen di tàggat moom nee na li am ba des daal bilan bi ñu am moom nee na gënu koo bon nee na booy wër bilan bu bon dëgg dëgg dëgg ba jàpp moom wala nga yegsi ci lii moom entraîneur ba jàpp na ne daal bilaa ba bon na lool ba yegg ci lool yëglikaay bi di suñu làmb xëy tey ñëw andil ñu lu mel ni ki noonu keneen koo xam ne nii yëglikaay bi xëy na tey andil ñu ko tase ak moom ca Medina Baye muy rëg-rëg rëg-rëg nag dafa demoon Medina Baye jaale ji mu mel ni ki nag na faa yëkkate ay kàddu daal ginnaaw ba mu jaalee ba pare Lac de Guiers numéro 2 ko ca laajee nee na moom daal amul lenn lu mu ko mën a wax lu dul nuyu ko ndax jàpp na ne Lac de Guiers daal garaam la tey itam mbër la moo xam ne moom mu respecté la moom rëg-rëg loolu la xëy wax keneen koo xam ne respecté na ko ba wax ko Cheikh Diop Yékini jàpp na ne kilifaam la tey itam sax idolam la maanaam seenu diggante daal loo ca mën a dégg moom rëg-rëg daal rafetlu na na muy doxee diggante ma ka nga xam ne moo di Cheikh Diop Yékini leneen loo xam ne nii rëg-rëg wax na ca muy digganteem ak ñi nga xam ne ñoo ko ci wàllu mystique rëg-rëg ne nañ ko daal foofu ndax daa am ay jafe am ñu dem bàyyi le rëg-rëg na déeréet loolu masta am ne na ñama àndaloon ci wàllu mystique ba tey ñoom laa àndal boo amee kay ku ci génn xanaa kenn la mooy dawur ma nga xam ne nii mu nga ca Espagne waaye nee na ñoom ñépp maa ngeek ñoom ci jàmm kenn ci ñoom daal soriwu ma maître loolu mooy waxe ka nga xam ne nii moom moo di rëg-rëg ci yëglikaay bi nga xam ne moo di sunu lamb Abdoulaye Diagne nag ca Kaolack daal la séqal waxtaan woo ba mu demee ca Medina Baye ñu dem foo xam ne soriwul Medina Baye muy ca Gàmbi kañ fay fekk mooy roi des arènes Gàmbi ba muy xoyantaan xoyantaan nag moom leeral na mbir yee nee na bàyyi ma ñoon lay waxal nee na ko léegi nag soo bëggee nga sama diggante ak yow ñu leeral ko loolu mooy waxe xoyantaan fa nga xam ne nii moo ci yëglikaay bi nga xam ne moo di sunu lamb yëglikaay bi xëy na tey ñëw andil ñu lu mel ni ki doon melentaan daal bàyyi ma njoon lay waxal ne na ko kaay nu leeral ndax nag sama diggante ak yow lëndëm gaa nga ca crise ba tey te leeragul te bëgg naa nu leeral kon nañ leneen loo xam ne nii wala beneen yëglikaay boo xam ne dañ fay dem muy record record nag moom tey am na lu mu xëy ëllil ñu ko ci ay leeral muy écrit yi ren ak nañu doxe ak classement ba mu mel ni ki nag moom soo bëggee dégg-dégg lamsaar daal ren moo sànni karawaas ga daal di jiitu gaaña dem ca a a a kaw maanaam mooy numéro un kaay baax moo jël ñetteelu place ba jàmm gën wala boog ñaareelu place ba kaay a jàmm gën Sicap Mbao mooy ñetteel ñeenteeli place ba Yoff mbooloo la Rebeuss tam ñëw ci juróomeelu place ba waaye am na écrit yoo xam ne nii moom soo bëggee dëgg-dëgg ak école dalit ya yàgg moo xam Fass la école dalit Balla Gaye ba ci roog énergie moom wala Ndakaaru seeni mbir doxul bu dee fa nga xam ne nii ñooy école dalit Balla Gaye la moom vingt-et-unième place la ne Fass vingt-deuxième roog énergie moom ndaare la jël yëglikaay ba xëy ñëw tey moo doon dicté ay luwaam maanaam tegu ca kaw di doxee nu ko neexee ñu jógee ca 2014 2015 xam ci cosaan ñëw wane boppam jàpp Rock Énergie tamit ñëw daal di wane boppam bu baax a baax 2018 wala boog 2017 jàpp 2018 dóor dóoraat moo doon teg ndawal jàpp yoof moo gàddoon mbir yi waaye jàpp 2020 moom Lamsaar moo teg ko record tey xëy ñëw andi la ko waaye yemu ca ñëw na. na ci lamb simple ji ak xaalis ba nga xam ne wàcc na ci mu toll ci ay centaine de millions la ko yëglikaay bi jàpp ci xel mag Abou Ndour ba tey lam nu xamal nag ci ay journée ca am moom toll na ci deux cent trente cinq journée mu mel ni ki daal loolu moo jot am ren ci lamb simple ji loolu la nu ko yëglikaay bi toppale tey ëllil ko fële demee fa nga xam ne moo di ca Leewtoo TV mel ni ki tamit daal ku yebu xaar fa vidéo boo xam ne bu doy doy waar la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 waaw ah, kon boobu nu ñëwoon si jàngatu arène bi. tey masque nga maye de. waaw ah, dam yaram bi xaw a jagadi rek moo tax ma sol masque. ah yee moo gën a wóor voilà. yàlla na nga wér ak jàmm waay. amiin waay amiin war nga dolli ay ñaan de ah. waaw waaw incha allah day noonu ah, na. Mm. ñu ñëwoon nag eh, sunu laam sunu laam nag dafa xëy nag eh, def nag benn jàngat bu yaatu. ci mbër yi nga xam ne ñoom dañoo nekk ay mbër la ñu woon ay ay adversaire la ñu woon maanaam bëre woon nañu dem ba ci biir nag nekk ay xarit nee ñu ki nga xam ne mooy Balla Balla Balla Gaye nee ñu moom ak mais finalement daal dafa mel ni comme ay mag ki nga xam ne mooy Gris Bordeaux ak Eumeu Sène ay dëkkandoo nañu léegi tamit ay xat lañu Modou Lo ak moom nañu ay xat lañu seen giir dund waaw mu mel ni kon loolu daal boo xoolee ca démb ay adversaire lañu woon mais dafa mel ni tey jii moom ay xarit lañu ay dëkkandoo lañu ay mbokk lañu. bu ñu diggee ci diggante Baboy ak Balla Gaye defe naa ne ku ne gis na seen diggante ni mu méttee woon. seen adversité dëkkante ba seen combat taxaw ñu bëre Balla Gaye am ndam waaye ñu ci jógee nag yàlla def baa booy ba bàyyi bëree dafa yaakaar naa tey mbër mi Balla Gaye numéro 2 gën a sësanteel ci làmb mooy Balla gay numéro 2 loolu nag moo lay wan ne adversité gi kon buñ ci tolloo di ko def na rafet Eumeu Sène ak Gris Bordeaux ku ne gis na seen ñaari combat bu ci ne na mu méttee rawatina bu mujj bi ñu mujj bëri ndax kere yaakaar naa ne képp ku yor xolu ne sa xol kere yërëm na ndax xeex bu métti ba ñu xeex deret ja ca génn ak fa combat bu mujj ëmm seen mujj am ndam te giri moo daanoon ca combat bu njëkk ba waaye tey defe naa ne ñaar lañ ñoo xam ne ñoo bokk dëkk ca mbaaw di ay xarit yoo xam ne tey seen njaboot a ngi demlante di dikkalante ba tey bu ñëwee ci Papa ak ki nga xam ne moom mooy muutloo tamit noonu la demee woon defe seen combat ba kere xëccoo gàllaaj baak la ca mujj am parcelle yëngutu xam nga mu mel ne loo xam ne ni bis bu kenn dootul fàtte la waaye tey gis nga fi ñu mujje kon mu mel ne ki daal buñ ci tolloo war a liggéey nañu liggéey ci fulla ak fayda mais lépp ñu ko mais su jeexee tamit comme la booy ñaa waxoon rek ñu dem ci leneen dund leneen defe naa tey foofu la ñu toll fi ñu toll tey ñoom kenn mënu koo bañ maanaam parce xam nga ne Eumeu Sène ak ñoom ñi toll ci làmb di bëre bàyyeeguñu mënatuñoo bëre mm. parce que nañu dëkke la Papa ak ak ko baa booy moom bàyyi na bëre moo lay wan adversité gi. nañ ko def ba mu dëgër waaye du bu mu nañu réserver nag pour kay ëllëg. parce que dama la ko waxoon keneen rek ndey Kumba Fall saa booy xuloo xuus. booy juboo da ngay tefesu. Mm-hmm. moo tax ba nga xam ne lu mënte xew na lépp rafet. waaw Babacar nag journal Sunu Lamb ñu ne tamit ci bilan xam sa cosaan nee nañu xam sa cosaan moom dafa nërmeelu bu metti metti nee ñu huit combats def am cinq défaites ak trois victoires kii di Jordan moom nee ñu comme daal fantôme la. kenn ko seen xam ne daa fa la nekk mais kenn gisu ko. Mhm. ki nga xam ne mooy Onde le Fou nee na toujours à quai maanaam mi ngi fa mais daal. daa gaare ne dafa gaare dafa tege ne oto bu yàqu soog ko moom le rendez-vous avorté xam naa nag mooy defet yi mu mujjee am. Babacar waaw soo boo xoolee écurie xam sa cosaan écurie la boo xam ne moom yàgguñu koo sanc mhm. waaye fexe nañ ba ko ci làmb ah mu mel ne saison bi ñu démarré woon bi mu taxawee li ñu jot am ci combat bëriwul mais xoolee huit combats cinq défaites trois victoires mu mel ni du résultat waaw donte tamit bëri nañu mais résultat ba baaxul Jordan moom comme ni ñu ko waxee rek gëj nañ koo gis ci mu bëree te boo xoolee combat yi mujj a bëree yëpp da ci am ay défaite mais ni kon mbër la mu nga xam ne itam ah war nañ ko xoolaat xoolaat taxawaayam fexe mu bëree ki ci des muy euh, leader bi comme ni ko yëglikaay bi waxee muy euh, kële euh, nu mu tuddati Ondu Ondu sama waa ji mu koy nuyu di ko ziar Ondu itam mu mel ni moom boo xoolee sax moom xëy na année bii nii la def année blanche bëriwul mm. mais année bi ci ginnaawam bëriwul na def su ma jumul ak aada fas ba daan ko kon moom xëy na adversaire la doon xaar pour mën a bëre ren far yàlla def corona ñëw bëreetul jet li jot na bëre combat bu méttee méttee bu tar waaye daf ci am defe diggante mag xale ba nga xam ne moom mooy mbërum kayaar ma euh, mu mu daan ko muy combat boo xam ne a xamal ne mu ngi dox waaye xëy na ni ñu bëree ren wala résultat yi ñu ren moo baaxul soq waroon na bëre bañ na suba la combat am corona ba ñëw jaar fa combat ba amatul diggante mag gàmmu géey muy écrit boo xam ne itam ah li ma kon li ñuy def mooy gën a liggéeyaat ñoom naaru sogaas ay maka nga fa yoo xam ne nii tey am nañ expérience boo xam ne mën nañoo gën a liggéey encadré xale yi parce que am na xale boo xam ne nii tey mu nga fa ñu koy wax Batista numéro 2 moom itam espoir la bu nga xam ne nañ ko bàyyi xel parce que man xam xam naa ko xale la boo xam ne ay atam bëriwul macha allah mais itam yor na siru champion buñ ko encadré yaakaar naa li ñoom jët li def ak ñoom soq fi ñu nii mën na fa ñëw te bu fa am nañ yaakaar ne sax mën na ko dépassé kon daal di leen wax daal ñu gën a liggéeyaat comme ni ko seen entraîneur liggéeyee waaw ni ko seen entraîneur waxee parce que jàpp ne résultat bi du bu gën waaw suñ demee nag suñ jógee nag euh, xam sa cosaan dañuy dem ba Gambie mhm. foofu nag roi des arènes bu Gambie muy xoyantaan moom daal nee pare na pour bëri ak ki nga xam ni euh, mooy Baye xam nga ni mu demee woon daggal sa wee dama dagg sama wee <laughs> ba mujj moom mooy combat bi moom loolu ci mën a dégg promoteur bi muy jamaykee la ko ci waroon def na ko ci lépp ci mm. wàllu may a am ca la am ci ay daggawee ak du ma daggawee ba far ba mujj fa yàqu tey nag moom xoyantaan bëgg nañu leeral ko effectivement war na ko bëgg parce que loolu yaakaar naan képp kuy mbër am bés bu toll noonu àddina yëpp di la seetaan bu combat mujj foofu di nga bëgg pour leeral ko xalaat naa itam bàyyi ma njoon du ko moytu ndax bàyyi xam xam li ma la wax rek moom pakko bi yër la moom faalewul ngelaw luy dippib jaañ moom mhm. moom yoonam newut ci loolu kon promoteur daal nañ ci xoolaat ku mel ne jameke mi ko tëggan jibal Touré ca Gambie ak promoteur u ah. Sénégal yi buñ ah, ah, moom kay xam naa xoyantaan bu bëggee combat bi nañu <laughs> ñëw Sénégal fii rek bëree ko fii <laughs> waaw su jógee nag foofu nag dañuy dem nag su jógee nag euh, bi dañuy dem foo xam ne sorewul ak Gambie muy Kaolack foofu nag euh, guy gi euh, rëg rëg mi ngi fa woon nag xam naa doon présenté nag ay condoléances am mhm. moom foofu nag wax na fi nag ak Ablaye Diagne correspondant suñu lamb bi moom daal nee na seen combat moom ak guy gi combat bi boo xam ne ñoom ñaar ñëpp ko bëgg waaw loolu la xëy wax moom jàpp na ne combat bi ñoom ñaar a ko bëgg ah ñuy ci profité waal di nuyu waat waa Medina Baye di leen jaale kilifa yooyu fa wàññi ko fan yi di ñaan yàlla yokk seen ay leerte boor leen euh, euh, euh, fa la ñu bokk waaye ñaan moom da dul doy mm. rëg-rëg nag la mu defoon defe naa yoon la dem fa jaale ji waaw ñu laajaale ko ah, a guy goom la mu wax rek kon la ca des mooy rek xëy na taxaw ga am waaw lu ci des mooy wax na ci digganteem ak Lac de Guiers numéro 2 digganteem ak Yaxya Jóob Yékini ci cër bu mu leen jox ak yu mel ni noonu muy mbër moo xam ne ni tamit comme li may wax rek mu ngi ci làmb ji di wane boppam mis tamit ñu ko wër xamal na ne foofa amu fa kenn problème ñëpp a ngi nekk ak moom xëy na kenn ci moo fi nekkul fan yi te dafa voyagé muy dawur moo dem Espagne mm-hmm. loolu nag moo ko liggéey ànd mm-hmm. Babacar suñu jógee nag euh, si nag dafa defar bilan bi moom def na bilan moom euh, bilan saison bi comme que saison bi jeex na. Mhm. nee ñu nag ki nga xam ne mooy Lansar moo muy utu ki nga xam ne mooy. Yoff Yoff ndax ñoom daaw ñoom ñoo jëloon euh, ngem door bi ren nag xam naa Lansar moo ko jël ndax nee ñu am na 8 victoire am am na 7 défaite euh, am na 7 victoire benn defet ak 0 nul nee nag ñoom noo jël paie Balla Gaye école de Balla Gaye ñoo jël 21 20 21. 21 Fass jël 22e. Rock Énergie suñu xel nag. <laughs> roi bi fu mu nekk. Moodu ni <laughs> ñu koy woowee. da la jël. roog RSI moo jël daara mu mel ni kon lamsaar itam dañu ñëwaat rek ndax lamsaar amoon na benn moment boo xam ne ñu ngi woon ci kanam ñu dem ba benn moment tamit affaire mm, mm, mm. Euh, xaw a at yooyu daal wane ah. woon nañ seen bopp loolu dañ daan bokk ci les cinq leen a të ren nag daa mel ni liggéeyaat nañu ba ñëwaat tey nekk ci kaw a kaw a kaw ka ñëw topp ci seen kaw yaakaar naa mooy kaay baax bu mm-hmm. tëngee mel ni kon écrit yu bees yooyu tamit ñu ngi wane seen bopp baax a ay jàmm gën si gàmbaaw gis mu ngi troisième place violence écuries a nekk loolu moo lay wan ne affaire bi liggéey la rek parce que lu may wax rek mm. euh, nekk ci sommet bi Ndeye Coumba Fall liggéey ba dem au sommet yomb na mm. mais li jafe mooy nga fexe ba toog fa waaye nag Rock Énergie tamit noonu mu jëlee ndaare parce que am na ay at ci ginnaaw boo xoolee palmarès bi mu ngi yoon ci kaw mm. mel ni kon affaire yi tamit sport moteur parce que xëccoo la te lu ñëpp bëgg Ndeye Coumba Fall Fall moom ah jot ca day xaw a jafe. waaw amuñu tamit defaat na tamit benn ginnaaw mu defee bilan écurie yi nag euh, dem na nag si lutte avec lutte simple bi nee ñu daal euh, def nañu journée une centaine de millions distribués nee bilan général sans frappe bi daal loolu la. waaw 235 journée mu mel ni ah. kon daal xaalis ba bëri na ay centaine de millions la Fatick moo waaw waaw mu mel ni kon noonu mu ko décortiquer ci yëglikaay bi yaatu na ba nga xam ne ku fa dugg di nga ko gis mu mel ni kon Fatick moom defe naa ne ak lit simple defe naa ne moom dafa mel ni mooy géej gu amum ndox rek loolu moom seen yëf la ñu ciy profité di nuyu waa Fatick rawatina seen entraîneur ba nga xam mooy ne ca région ba muy Bafa Gueye ak encadrement bi nekk foofu yëpp mais loo ci mën dégg daal ah, yaakaar naa ne kon Abou Ndour ñëw na tey def na ne 235 journée kon mu ngi doon dox di dem aw yoonam xam nga bu doonoon corona bi kon dalay leer na mën nga dem ay 500 journée parce que 235 journée ak fi mbir yi taxawee 235 500 na xëcc nag ah waaw xoolal 235 cent 300 kay ah, ak ak fi mbir yi taxawee ko lu mënoon a nekk la de mars la taxaw. ah mars waaw avril mai juin juillet la la saison di tëj. ay mois fi doxoon. 500 journée. lu leer laa la. non non no ma ko wàññi parce que 200 yi moo tax 235 yi moo tax ma def loolu. waaw kon mënoon nañu am journée yu bëree bëri ndax li sam tout le temps day tëgg. waaw ya tëgg moom. tout le temps day tëgg région yi fépp voilà. na ne. waaw ah, ah xalaat naa ko parce que <laughs> boo xoolee Adrien Senghor gaal gi des fois ñu tëggandoo même mm, jour. Mm, mm. nga dem région yi moom. ay Mbour ak yooyu waaw dañuy tëgg rek Fatick waxaale wuñ ko Kaolack noonu. kon ah. boog li nga wax mën na ne. ah xalaat kon wàcc naa ko. <laughs> <laughs> baax na noonu lay demee kon. Babacar nag nee nañu encore rëg-rëg guy gi encore xëy na mu nekkaat tey ñu jot seen avance comme boobu tamit métti na de. waaw doy na waar de loo ci mën a dégg daal xam naa ne fi nekk nii moom. ah. des na ci euh, daal. waaw parce que tamit vraiment ñoom ñaari mbir daal bu fekkente ne pare nañu. seen staff yi pare nañu ñi leen di tëgg pare nañu. nañu fexe nag waaw nañu kon ñoom tamit nañu fexe euh, comme ñaari mbëri pare nañ. nañu fexe ñoom it génne avance joxe ko. parce que tamit nag euh, olof da koy wax yàpp xaj bu seddee day soof. yàpp xaj da laa ko. Ah, waaw damay dégguñu di ko wax rek da di dëgg. maanaam loo war loo war a def groupe rab ba daara ji lu ñu waxoon bul xaar looy def def ko. Ah. waaw waaw looloo fi war a ne kon na ñu fexe exécuté lii mu jeex. looloo gën yàpp xaj waaye yàpp xaj de am na ñu koy lekk waaye ñun fii ci sunum réew moom deesu ko fi lekk. kon nag baax na. waaw su jógee nag record dañu dem fi nga xam ni mooy Leewtoo TV nag foofu nag dañu fa amoon gan bu mag muy sunu patron di DG Leewtoo Production moom nag Pape Thialis Faye ñëwoon na nag si fan yi nag problème yi mu amoon. ak dóor yi mu doon wax ne moom moo ko dóor ak benn. Euh, soxna ab soxnaam wala corom. ñoom dañu waa des nag lu baax a baax a baax Babacar yaa fa nekkoon foofu noonu ci King Fahd Palace Babacar waaw loolu daal mu mel ni kon vidéo la boo xam ne waxtaan la wuñ seex ak moom muy lu boo xam ko xaar léegi ci nga xam ne mooy ca Leewtoo TV indi na fa ay leeral ci mbir moo nga xam ne arrivé woon na ko ci fan yi muy mbirum yoon ak soxna su mu joteelu nag jàppal bàyyil mu mel ni kon nag comme li ñuy wax rek euh, olof ne na nett li si làmmiñu borom la dàqe kon ku dem Leewtoo TV moom diñ ko dégg mu wax ndax laaj nañ ko mu wax ku nekk nag yaay xam nooy dégg mbir waaye loolu si laaj bi daa réenu xuus nga bi si biir de ah waaw parce que ñun suñu liggéey la ñuy def rek xam nga man Babacar moom li ma li may ñaan daal mooy yàlla bu ma def ñu ne kii li muy def dafa reew wala li muy def dafa ñàkki teggin wala nangam waaye nag am nañ droit laaj mbir su jógee wax ji bëri nii la demee demeewul ni am nañ droit leeral askan wi nga xam ne bëgg nañoo xam li xew te xëy na mënuñoo ñëw ba ci yow laaj la ñu fexe à travers micro Leewtoo TV ñu laaj la yow nga wax nga expliquer hmm. loolu lay demee rek waaye nag waaw bëgguñu daal di def luy blessé nit wala lu nga xam ne day uññi suturaam wala lu koy ñam manqué respect kon boog baax na Babacar la ñuy tëjee dinañ jox dig dajee suba li ñu astanne Cheikh euh, Khadija Diallo di DG Brahma li ñu samay doom Mame Diarra Penda Rokhaya Grand Fallou ak Cheikh Ahmed Tidiane Tandine depuis euh, euh, Thiès maa ngi koy nuyu di nuyu Assec Cheikh Khoudia Seck depuis Italie maa ngi leen nuyu Abdou Gueye Baye Fall jàmm gën Papa Sita depuis États-Unis aussi maa ngi koy nuyu di ko jox wàccuwaayam Babacar waaw di nuyu ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm di wax ka ni rek borom baraman yoo xam naa war nañoo may ci ginaar yi xaw ma bara DG baraman wala baraman marque la nii rek as tandine as Cheikh Khadija Diallo as loo ci mën ah, na la kii kan nga ne doo sol lu xonq déet déet déet déet man su may may na ma may lu góore ah loolu góor lu xonq lu góor ah, nday kumba lam ma lam ma jox góorewut man lu góore laa soxla as loo ci mën a dégg daal joxe lu góore bu dee da ngay di la nuyu di nuyu sa soxna di nuyu ñëpp ñi nga xam ne ñuy suivre fu ñu mën a nekk rek 100 pour cent Babacar du leen fàtte ñoom Pape Ndiaye jiga grand laay jib seen Cédric Marcelin Ndour yàlla fa saaxoor ñoom ñëpp maa ngi leen di bëgg di leen ñaanal jàmm ñoom Saliou Sarr xam nga ak fans club ca Brésil nekk ca bopp ba ay ñoom Fat Jarax ku Bombardier moom bu baax baax di nuyu ñëpp ñi nga ne ñu ngi ñuy suivre mais tamit di dem ci marché yi di nuyu ñi nga xam ne ni ñoom ñooy marché Tilène Sandaga Asalem ba marché Ndiarème ak Guédiawaye ak Pikine nag marché yëpp maa ngi leen di bëggee mais di nuyu sama rakk ja ca Loora Lamine di ko nuyu di ko ñaanal jàmm di ko naa la trop mu ngi yoon Loora di nuyu Loora Loora yëpp di tamit suma mag suma xarit docteur Macoumba Diouf ak soxnaam Louis Senghor maa ngi leen di béggee bu baax a baax a baax yàggamaar ah, taalibu Cheikh Béthio mu Serigne Saliou maa ngi koy béggee di ko wax ne yàgg moom da ngay xam ne moom jantal gaala lu mu def rek noonu la waaw noonu noonu la nit da ngay nit da ngay bëri jinax da ngay bëri pax soo bëggee mucc kooko yàggamaar bu suba incha allah